أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا لا ولا حوة إلا بالله السميع العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يكتني يوبي جميكو سنكلف ديني awale ko ci ali beyti nabi wa kar sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ñu wàccal ñu yobi ci këru diine l'islam yëpp xalif généraux yëpp wàcc ko ci kilifa aada yi wàcc ko ci kilifa adina yi nuyu le CNG jëmal ko docteur Alioune sar mu jox ñu ko Matar Ba ak ñi mu àndal ñëpp le ministre des sports

ca animateur ya ca microcentro ya ca waykat ya ca tëggkat ya bàyyiwuñu kenn waaye ànd ak ñoom seeti ñi ci hôpitaux yi ñaan sunu borom mu fëgg seen bopp ak ñi ci kër yi tawat ak ñi ci mbedd mi tawat yàllaay faj yal na leen yàlla faj bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam ñi caabi féete yal na yàlla tegi natt woowu ci ñoom ku mu nar a jubal moo lay jubal mu jubal leen jubal ñu te teg ñu ci njub bi urmat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa gor ñu baax njiiti réew mi di daan seen doole ak ñi nekk bitim réew di daan seen doole te ku bëgg teraanga da ngay nagoo daan sa doole yal na yàlla yombal leen la ñuy wuti ñoddi ko ba mu tafoog ñoom daro ñoom ñàpp te dootu tàggaloo koog ñoom mu doon seen wërsëg doon seen muur bi urmat Seydina Muhammad sallallahu alayhi bépp auditeur bu toog déglu RFM ñoo ngi saafonteeg yow xol ak xol di ñaan sunu borom réew mi doon ngeen fi réew askan bi doon ngeen fi askan bi urmat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dolli fi jàmm raxas xol yi tàppi ko boole ñëpp ñu bennoo bi jaay Seydou awlin wala axirin Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am gan yu xam ne nag tey ki mbër la takk ngembam di bëre ba bàyyi nekk promoteur muy booy gànjool wa ah, boy gendar boy dañu bari gànjol amoon na lu ne am na fi bay dem ba war ak yep fofu la joge ci di boy gendar xaritu ñep nak am lu reelu mu nam ca ak xale bo xamne nak mi ngi ci bir lamb ji di ndaw fi mag ak ndaw ñep fi lañ bok ndax ñun dara ñoru ñu luddul askan wi seetu askan wi war na jëflante ak askan wi lu ñuy gise seen bopp ci rajo ba ci télévision bi ci journaux yi ci lépp waaye beral ñu kooku mooy kan. booy joolaa wakaam. booy joolaa wakaam kon wakaam joolaa ngoog nuyu nag sunu kilifa El Hadj Youssou ak ku mu bokkal ak ku bokk ci kër gi yëpp ak soppeeg ñëpp. suñu représentants yi xam ne ñoo ngi nekk dans région régions ñoo ngi leen di ñoom ñëpp ñu ju jaxasoo it ci àndandoo ñoom ci liggéey dinañ ci wax Assane Ndiaye dinañ ci wax Jaxate Kaba Yéeri Sidi Borom Thiès ak ñaneen ak ñaneen ak ñaneen suñ joxe ñooñu rek nuyoo bi mën nañ ko jàllale. moom combat yu bari yu xew yu ñu bëgg mu taxaw ak yu taxaw ak yu taxawagul yamuñu ci loolu coow nekk ci biir làmb te làmb dafa ànd ak coow ñu ñaan coow li nañ ko coow ci jàmm ak salaam tey waxtaan seen biir ndax démb dangeen ngeen àndoon doon waxtaan démb dangeen nekkoon bennoo ci seen biir su ngeen demee ba jamono dab leen dabaale ñu génnuñu ci ndax ñoo ngi ci biir lu mu mën a doon nañ ko waxtaane ci jàmm ak salaam ci ngor ak fàttaliku démb ndax démb jur tey sàmm ci sunu ngaar ak sunu ngor sàmm ci sunu diine lépp mën a rafet dara du ñaaw ndax ñu ñëpp ay sénégalais lañu te ñun ñëpp lu ñu am fii lay ñuy toog ak moom lu ñu bu ñu demee lu ñu am ak lu ñu aman fii lay des te fi lañ ñuy denc. gars yi nañu rafetoo ci suñu biir nañuy daw lu ñaaw ci wax ci dox ko ci wax ko ci jëf ko yal nañu yàlla dolli jàmm bi urmat rasul sallallahu alayhi wa sallam maa ngi yéen du ñu sori le premier ñoo nga jëm Bargny ak Assane Ndiaye dinañ dem Thiès ina ko nga fa. si ci ba maari dinañ fi joox le huit ñun ñëpp danañ dem fi nga xam ne nag mooy arène nationale drapeau Ndiagne Diop ak waa Bambilor waaye le quatorze dinañ dem ca Ndar Géej te stade ñu duppee ku Makka ki réew mi di jooy te noppi ñu muy élage ma waadu waadu ku ñu fay yóbbu ñu ne booy Guet Ndar dinañ ci ñëw ak moom léegi incha allah rabbi ñu déglu maam góor gi dellu si. waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari te lay bari lay baree bari te lay baree bari ndaanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci yi ci yëley boor bàyyi Fass Njaay nu roowu ñoom cuuna rëy ma juub waa na ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor si jeeg gën gu den baax boo demee Fass Binta nga fay baax Binta Juuf yaa yàgg ci baax Binta Mandiaye Juuf ba tey yaa ngi baax Ndey Faal Penda Faal koo ci ne moo a baax koo kaay kala neex waaye ñoom ñëpp a yaroo mbaax benn may sa ñoxor faal benn ab sa faal benn yaay yi nday faal kenn gënu baax mën a yéeg seenati nag soon te saa yu soon su ko yëree mooñ sëriñ Mbàkke soxna loo borom tayis borom mbay laa sëriñ Mbàkke soxna loo gënee su baax sëriñ Mbàkke soxna loo man Njaay maa xam na yaa baax Serigne Mbacke soxna loo Serigne Cheikh mooy sa baay Gaynde Fatma baax yaara may sa baay Serigne Mbacke soxna loo magi Abdou Fatah Mbacke Abdou Rahman Abdou Fatah Abdou Xaar Aliou Galas yéen a ma safoo lool man Njaay ma safoo leen bëgg leen naw leen da ngaa yaroo baax da ngaa saxoo baax da ngaa doon yaaram ñi sa baay yaaram ku la gën a baax newul ci duniya yàlla na fi yàgg lool te am mujj wu rafet te yàlla may la wér may la jàmm lool sëriñ Mbàkke soxla loo ngërëmu yàlla yàlla wàcc sa kaw gaa amin kaar sëriñ Mbàkke soxla man maam góor gi ngaay maa la seedal lii xojox dogoo tilak ndooy saa yu dogee ndooy fanaana caa reer maa ràññee jooyi ndeer maa déggoog jooyi ndeer géwal ndaa naana may jiin weesan fay yaay naa dat bi may jiin doo géwal bu ay gaaf 56 83 seng-seng nga may jiin man may du may daan njaga samba baax mook jabel mayum pikin góoru mbaajo faal ñooy ñu ñëpp ñu bëri maam góor démb leen gëlal mënuñoo dóor a calcul si biir bëre mbër mu ndaw ku bëgg a siiw da ngay moytu maam man Ndiaye maa xam fi may dóor surtout mu mën jéem ci battu lay dóor booy bambara ba may bëreeg moom sa nang laa ko dóor bàyyi ko muy jeex muy waraam biit ma dóor ko mu toog Moussa Diame mi ñuy soow ba may bëreeg moom sa nang laa ko dóor. ba ba ba jeex ba mu mën a jëfee suuf takkoon ko jëg siis daan naa yoon ani du duma ka saar daan ñaari yoon bekay 3 millions soow kooku daan naa lan li njàmmee ma doon tawat moo ma doon tawat ci dóor bi muy dóor ba ñu bëree ngaay dama kaa dóor mu toog mu ñëw ma daan naat mu ñëwaat ma daan naat daan naa ko ñetti yoon a yaa mbaa doo saar ker baa ko dóoree sanang bàyyi ko daa toog Balla Gaye ba may bëreeg moom sanang naa ko dóor bàyyi ko muy miir muy waraan bi ba daal faf toog ba mu dellu see far mu gën faa ñaaw daan naa ko ñaari yoon Joseph Diame sanang naa ko dóor ñoor di ko booy bambal te bambal kooku daan naa ko ñaari yoon njob ba mbay ca mayeen joob jot na ndéegu ngaay samba njoro ndaay ci liigu ngaay ku ci nekk benn yoon ma yoroo faal sa ko dóor ñot di ko muy raam muy but lu woon far mu gën faa yées baabu ñamat mi ñuy soow ba may bëreeg moom seeda yaa ngi toog Habib Gueye Bakar Sarr ana faal sa nan ako dóor ko muy duggat muy ñëw ma kay daat ba muy ñeenti yoon Ibou Senghor mi ñuy soow sa nan naa ko dóor ko muy duggat daan naa yoon Samba Diaw bu gaan joon dukkat loo nga ku waaye bàyyi ñu ñu nit ñu boo dukkatee foofu bàyyi ñu ñu dukkat fii téel ma ko téel ma ko téyel ma ko téyel ma ko ma ñëw téyel ma ko téyel ma ko téyel ma ko hmm. jàppoo ñoo jëm Thiès ñu dalal seen gan maa ngi lay nuyu asalaamaaleykum waaleykum salaam alaaji Thierno Ndiaye yow la man la Seydou Diong. da koy wax àddina yëg ko. Euh, man la Seydou Diong nekk euh, président des jeunes UNACOIS. Mhm. jàppoo région de région de Dakar. yéen a nar a jëm Thiès fekki waa Thiès. waaw euh, ñun nag ñoo fas yéene am bës muy bësu làmb ñu fas yéene dem Thiès ci arène Maniang Soumaré. muy le premier mars. di drapeau di ban bis di drapeau alaaji Idi cham ban bis la mu don dimanche da ngay yi ñu jëm voilà muy le premier mars ca ca Mañang Soumaré waaw bu ties di drapeau alaaji Idi cham président national bu UNACOIS jàppoo lu ngeen fa nam euh, alaaji bëss bobu nak liñ fa nam xamna ni bu ko émission may mom ñu jëm ci ñëmu waxtaan mo tax yow la déglu ndaxte UNACOIS jàppoo moo fas yéene fête 30 ans yoo xam ne bës boobu lay tombeel mu am ko. ñu xool nag ne bës bi nag li nga xam ne tey moo ci war mooy UNACOIS war a sargal boppam wane boppam mu jaar nag ci bureau département bureau régional bu UNACOIS bu Thiès ñoom ñooy dañuy def programme décentralisé def nag làmb yóbbu ko nag Thiès fas yéene ko faa defe ca stade Maniang Soumaré. kan ak kan ngeen di. Euh, boobu nag moom euh, ñu ngi ci bëgg a jox euh, com maam daal grand combat combat bi. bàyyil ma ñëw laay goota ak daa la. goota. ak daa moo ciy bëre. ak daa bu Texas. ak daa bu Texas. muy làmb joo xam ne nag làmb jànq la. ku ngeen ko tuddee. bés boobu nag mooy drapo gor si kilifa gu màgg googu nga xam ne daara ñor ko lu dul commerçant am jàmm. réew mu am jàmm askan wi am jàmm. kooku mooy kan muy saxarit sa am di jàmm. mooy kan. Alaaji Idrissa Thiam. ku baax di président national bu Unacois Jappo. Mhm. kan ku ko nga xam ne promoteur bu ne seeti na ko ne ko bés laa bëgg bëgg a jox mu ngàntal ndax tëdd njaaxanaay waaye bii nag bon bés boo xam ne nag mënu koo bañ ndax njabootam aaye. bisam la muy bésam nag mu nang ko nag ak ay loxo yu ko nag jël ko nag ne bisimilah. làmbu Thiès fas yéene dem nag Thiès nag bëggal ina quoi bëggal askan wi ànd ko askanu làmb ànd ko ak ak waa Thiès muy le premier boobu ñu fas yéene dem nag cees nag fete ko fa nag. di dimanche. muy dimanche bii nga xam ne benn bés moo ci dox si digganteem ak tey muy maam daal suba. Mm-hmm. incha allah ca nañ jëm Thiès. bés boobu nag El Hadj Idriss ban ko joxee drapeau bi da koo jël rek. lu ma wax ak yéen. gannaaw bi bi mu ko nangoo jël ko nag jébbal ko nag son excellence le président de la république Alaaji Mar Macky ak mboolem membre gouvernement am ne leen drapeau bi seen drapeau la waaye nag ginnaaw loolu nag da ci ànd ak nag ak patronat Sénégal ak tous les opérateurs ànd ak ñoom nag fas yéene waaj nag jóge Ndakaaru départ jëm Thiès fas yéene dem sa anan ba ma ne Souma Soumaré fête fa drapeau boobu ñuy def les 30 ans de l'UNACOIS mu nekk na bés boo xam ne nag alaaji mm-hmm. euh, commerçant yi jóg nañu dañuy jóg tëj boutique wàccee rideau naamu tànk jël daamaari songu Cees nag fas nag bëggal suñu bopp bëggal askan wi nag fas nag def nag 30 ans l'UNACOIS muy bés boo xam ne nag bu ñu départ fii Ndakaaru présidente nationale des femmes Adja Aïda Diouf ba day ànd ak délégation am. fu ñuy déparé. buntu Ina quoi jàppoo siège Colobane ba fa nañuy déparé à 15h def délégation nag parrain ba taxaw somon xaar leen ñu ànd fii biir bureau national ànd ak présidente nationale ànd ak présidente femme Jongu ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Gueye président national des jeunes and ak coordonnateur Dakar yi ànd nag ak quatre présidents département yi Dakar yi muy docteur Assane Ka bu bu Thiaroy vice président national maam Tamsir Niane. bo bëggee lim ñun yooyu yëpp du soti bu way xoolal délégation Dakar yëpp may ma may ma may ma may ma tuuti. indi nga délégation Dakar indi nga président yi département, yi départementaux yi et tout. mais ku ci ne boo ko bëggee tudd tudd la ko doon secrétaire am ak kii émission bi xaju ci. dëgg la Bacaro maam daal ñoom yëpp résumé rek kilifa yooyu yëpp parce que ñeneen ñaa ngi fi kilifa yooyu yëpp daal fii leen fas yéene déparé idi bëgguñu mu mere ñu waaw fii leen fas ne déparé te xam nga ne yow idi càmm bu jógee ñu war a dem fekk ko somon def délégation dem Thiès wàcc stade ba loolu bés la bés boobu nag bàyyi Thierno ginnaaw bi ñu la ooyee ñu ngi si oo képp kuy amateuru làmb ndaxte nag làmb ko tudd tudd si amateur yi tàmbale ko na teg ci loxo président alaaji du jaañ du jaañ jekko nga xam ne moom bés bii ku def na ko bésam bésam bam mu ko jëlee mu ànd si ak sa xarit alaaji ah, papa Dieng idi léppam la léppam la mu ànd si ak alaaji papa Dieng ànd nag ak ak làmb nag ak promoteurs yi yëpp association de promoteurs yëpp fas yéene ànd ak ñoom nag ñu war a waaj def délégation jógee fii nag jëm Thiès bàyyi ci yàlla ñu la ci woo nag di ci woo nag képp ku yëngu ci affaire làmb nag di xaar bés boobu nag ñoom ñoo te rëy organisation ba nu mu demee organisation bu noonu mbaa dina doy euh, fi may wax ak yow nii à à ñu ngay def réunion pour xool stade bi nan nañ koy sécuriser police joxe na élément yu doy gëm naa ne cent yi ñu waxoon sax ñu ngi xool pour yokk ko mhm. stade bi ñu ngi ko sécuriser sonorisé ko mu fas yéene jàll nag en direct nag sur la 2STV te am naa ne yaakaar na yéen wuy waa waa TFM RFM bës bi kenn du ko tudd nag ba leen am ngeen cër wu rëy nar wu ngeen si am ñu fas yéene leen saa xaar nag ngeen war a ñëw nag. waa bureau waa bi waa bi waa bu Thiès nga xam ne xale yi inaakwaaye ñoo jël bës bi organiser ko ñoom ñoo toog fi mu nekk ni di xaar pour ñu war a départ dakaar fekk leen Thiès ku ci mel ne Badou Badou Badou Mbaye Ismaïla Sarr ak euh, sëñ Saliou ñoom nga xam ne seen loxo la mbir la nekk ñu ànd ak président Baye Daam Baye Daam ak président Thierno Ciss fas na dalal nag dalal waa Ndakaaru fekk leen ñu ànd nag fete nag les 30 ans de UNACOIS muy bésu El Hadj Idi Thiam. Baye Thierno sa bés la. kañ la. muy dimanche bi. di la. di la premier mars. Thiès stade. Maniang Soumaré laay gooto laay gooto mooy bëreeg ak daabu Texas daabu Texas jërëjëf jërëjëf Baye Thierno sama naajo tuur tool saa gëneem tukkal sama ko sama jigéen jamu tuñ kon lu may teree réew mu ndaw mu ma tollool ya xam baat mbaate mbër mu mag mu ma tollool ya xam baat ba jàpp xelam mbaat baaram ba tëg il faut nga xam ne maa bari doole maa dem waagu ñaay rek la maa géwél dolli maa géwél dolleeti maa géwél gooto gooto yàqul diri bay xam nga ni ndaanaan laa man fees nañu man su may bëre gis nga su bëre ñi may àndal dañoo rafet yéwén dañoo taalu tabe yàlla ak yonent tabak Cheikh Tidiane Serif ma ca Faas jéeri ca Baxdaad saadu bu lim saat bamba sa lay yóbbu soo a tej temps boobu nag fi la ñuy ñëwee dellu si waat ci waxtaan bi Tigo xaritu yaayam nar a daje ak Boy Dakar ci arène nationale dina metti trop waaye ñun ak yéen dañuy àndandoo rek bo jola ma ngi nuyu nuyu eh, waxal bu baax wala nga genné studio yi. maa lay fay père. bo jola ci loné maa ngi sant yalla maa ngi nii maa si jaamu. ana kam wa wa kam ñu ngi fa ñu ngi si jaamu. ana waa Kédougou. ñu ngi fa ñu ngi ci jamm ñaata combat nga bari bari na 3 combat 2 victoires ben défaite. kañ nga gëjë bari man daaw gëjë bari lu waral lolu ah lu waral lolu promoteur mën naa ne promoteur yi la sa manager moo ne ma dem si benn promoteur di wax ak moom Mbaye Diagne. mu ni du dem ci benn promoteur. di wax ak moom. ay na wax ak ñoom waaye tolloo goo foofu Babacar boo jógee dimbaleel xale yi nga wax ak promoteur yi yow yaay seen baay ñi amuñ lu dul yow yaay seen baay yaay seen nijaay boo jógee man xam naa la xam naa xam naa la bu leen ko ko jàppee lébu la di dignitéem ak personnalitéem du ko jaay jamais. waaye Babacar loolu du dara jógal taxawu leen rek sa njaboot lañu sa dëkk ñoo xool ñëpp ñu ne fi ñu ni ñun lébu la ñu mbay jaañ lañuy ñuy jox sunu lépp kon téel leen seen lépp jóg seeti leen du ñàkk fayda ci yow ñoom xam nañ fayda ci yow xam nañ ne xam nga bu baax li nga leen jox waaye ñoom delloo nañ la njukkal lool ñoom it promoteurs yi ku ci ne jox na la cër Babacar jógal lool du dara jaañ jógal rek toppatoo sa sa doom ko mu jobereen sekk ndaanaan ko daan moom a daan moom laa bëree sama troisième combat mu daan waaw xanaa da ñëwoon foog ne yaa man xale moom ma jàppoon si làmb jooju noonu <laughs> léegi foo toll instant maa ngi si entraînement yi di waajal rek di xaar adversaire bu ñëw amul xaar adversaire ñen nga bëgg a bëreel. ñi ma bëgg a bëreel père bëri na booy ci ñi ma bëgg a bëreel bëri na. Liss Ndiago combat la du ko dàq. amel lak Rose ma mom dañ wara bëré boy ma wara bëré ci si ji dafa bëri père. waaw boy ñoo wara ñew ñu bëré ñu bay oytu wante bi di daw di tamu ku ñuy bëré lool du lamb mm. ñun ñoo mëna mayante xaaliss ay xale lañu mm-hmm. waaw. mais Tigo xaritu yaayam. xam nga ko. Tigo xaritu yaayam xam naa ko bu baax. mook booy Dakar. làmb du ko dàq. per suba am nañ ci booy bu si wara a bëre sa ñaar yaar. loo ci gis. làmb du ko dàq per làmb ju neex a ngi noonu. dinañ bëre dinañ xeex. loolu nga foog. billaahi. ndax dina am. dina am de. danañ xeex danañ bëri. danañ bëree. kooku du man maa ngi yow ñooy wax de dinaa dinaa ubbi sama lépp ci téléphone. ñu déglu gars yi yéen ak ñoom lan nga gis Siteu Papa Sow. Siteu Papa Sow mën naa ne bu dee avantage xeex ak bëre père avantage Papa Sow mu ngi si Papa Sow. Hmm, tax loolu. ndax Siteu booy xool combat bii nii man dama ne moom respecté wu si Papa Sow quoi. Ah. te dara dafa da dara si face to face. bi parce que Siteu lenn dafa war a am. si la daloon ndax dalu ko fuggu ndaw. waaw Siteu dafa Siteu dafa war a dépasser lenn si làmb per hmm. Siteu dafa war a màgg xam ne moom doonatul mbër bu ndaw. Hmm. xool ñi nekk si ginnaawam ak ñoom mbas Mbargaan mu leen di déglu. Hmm. fecc bu bëri bi si làmb ji da ko war a wàññi tamit. parce que loolu bëri bokku na si loo xamante ne boo ñëwee si làmb dangay joxe sa énergie boo duggee si biir géew gi dootoo deseeti dara. dafa war a ñëw dal. parce que Papa Sow boo xool buy wax a Siteu tànk Siteu rek lay xool. <laughs> yow ken bëree loolu ba nga wax tank Siteu yi lay xool booy xool tànk Siteu nak dafa tax mu dem tànk Siteu. combat fofu la nara jexé dé ah fan. Papa so soufu Siteu gi rek lay xol père. suufu Siteu. waaw. Laay Goota. rakk do Anta bi xam nga ko. lay Goota xam naa ko combat am bay guuy gi seetaan na ko fi estade ibomar Mar ba mën beure la. mais moy beure ak da da waaw Texas. mais Laay laa goote xale bu drapeau Idi drapeau Idi Idi Thiam. waaye nag waaye ñoo ko koy njukkale ci seen fanweeri at yu ñuy exister di ñaan yàlla nañ gën a exister te résister boole ci. amiin waay. loo ci xam. ah làmb ju neex la daal làmb du ko daax. loolu nga ma wax de. waaw. maa yow dina dem fu sori de dinaa ànd yow ba waaye dangay toog tuuti xaar ma maa ak yow bala ñuy dem ndar.

na Gueule Tapée génn Fann génn ñu jàppale leen ñoo ngi ñaan waa Fann Gueule Tapée xam nga ñu ñëw taxaw ñu xam nga uh-huh. xam bi ay xale fa nekk amuñu kenn ku leen jàppale libaas ak pulo ñooy bàyyi seen nit yëpp ñëw duñu entraîné ñu nekk faax ñoom xam nga respecté lu seen wax lu ñu tere ñu bàyyi lu ñu santaane ñu def uh-huh. mais am na combat yu yi xalaat de Eumeu Sène guy gi loo ci wax mën na nekk wala guy gi loolu du combat père lu tax ngan du combat du yeneen i mag ñi nañu may xale yi. <laughs> Eumeu guy guy gi guy yoon na mu bëree ñoom kii nii booy nekk fii. booyal ñoom ama neex ñoom Garga Mbossé ñoom Yékini Junior. ay guy gi guy gi yow it bëree ñu ne yow it guy daan na ay mbër valeur. loolu kenn werante wu ko. waaw ci xale kenn du jeexal sa maas. te ñoom mag ñi xa mag ñi mag ñi tey magi démb yi dañ leen mayoon seen chance. loolu dëgg la. waaw ah, du ñu maye chance. dinañ maye chance mais Eumeu Sène booy xool Eumeu Sène bombardier mooy làmb ji dàq instant bi en ce moment. ah Eumeu Eumeu Sène Tafatine nag. Eumeu Sène Tafatine tamit làmb ko dàq te parce que Tafatine gars dañ ko war a jël si làmb si poids lourd yi la bokk. <laughs> Tafatine VIP la ku bëre la moom. daf ko ragal Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 nag. combat la revanche da ka amee revanche bor la ka ameel. kon daal moo yooyu ñoo dàq guy gi ëmët seen. waaw Balla Gaye Boy Niang tamit làmb ju ko làmb ju. yaa ngi léegi yaa ngi yaa ngi ni Boy Niang Balla Gaye. non làmb la Boy Niang dafa prouvé parce que dafa daan. Sa Thiès guy gi prouvé na. non guy gi prouvé na sax mais boo xoolee Boy Niang fu mu jaar guy gi jaaru fa. fu mu jaar fu guy gi jaar. Boy Niang dafa daan Sa Thiès. waaw Balla Gaye nekk Lac de Guiers mooy bunt bi mu ñëw contrôle Lac de ñëpp gis na mu demee. waaw waaw. nu mu demee. yàlla moo si def li gën rek. <laughs> Eh, eh, joolaa mi jaaxal na maa joolaa nekk te mbër yi am nañu dañuy far seen biir. non mais père man foolu ma de Balla Gaye mooy sama idole mooy sama mbër de. <laughs> gendar dañuy far <laughs> waaye on est d' accord accord nañu booy Niang Balla Gaye d' accord nañu Ama Balde. Ama Balde Modou Lo laa mujj neex. loo ci wax loo gis. làmb ji dina am bëre dina am xeex. waaw wow. fi ko amateur yi foog as fi ko gars yi di xaar yëpp du fat kii. lu waral loolu. parce que dama koo xam père. yaa fa nee dina tàng de. dina tàng dina neex. làmb ju neex a ngi noonu. bu ñu bëggee bëri danañ bëri. bu ñu xeex xeex parce que Ama xale la Modou xale la. kon dana saf. dana saf dafa amel Ama bor daka daan ba pat. mais dina egg ci sàpp. waaw père làmb jooju. Hmm. gars yi fu ñu koy xaaree gaayan mooy loolu. booy joolaa waaw booy joolaa maa ngi yow fu ñu jëm nga ni kan ak kan nga bëgg. père Liss Ndiago. Liss Ndiago Liss Ndiago déggal yaa say mbokk yëpp booy joolaa nee na bëgg. Liss Ndiago làmb du ko dàq. Mhm. ay booy ñoom Ardo. waaw Ardo Boy Jolo Ardo fu mu nekk. Ardo mu ngi nekk parcelle. Ardo yàgg waa parcelle un ba vingt six. booy boo ngeen jóg Boy Jolaa nee na yéen a ak kan. bàyyi fi benn mbër ku ñëw danañ bëree. buñ la joxee ku xam ne du sa catégorie nag da koy jël. ñi la mag buñ la joxe ñi la mag foo jëm ngay jël man maa ngi fii pour ñëpp père bàyyiwuma kenn ku ma ah. laa ma booleel ma bëree buñ la bëggee jot ku ñuy waxal buñ ma bëggee jot dañuy waxam Mbaye rek mooy sama kilifa mooy sama lépp moom laa baale sama bopp Babacar yaa ngi koy dégg Diagne xale bi nee na yaay kilifaam yaay léppam yaay ménager am yaay papaam yaay léppam ne lépp lu mu mën a doon lu jëm ci moom jébbal na la ko yaay ma kilifa jeex na Babacar booy ba nga jóg sa booy joolaa bi ba mu doon grand joola ah père loolu la ñuy ñaan de waa Wakaam ñëpp dañuy bëri ñuy sonn si man xam nga. di jël seen xaalis di def si man ku si mel ni taa jeena ba aboneel ma Sall waxuma déet mu jël xaalisam di ma jox may lekk ñoom bàyyi ma ñoom moor ñoom Zig ñoom Ibou Zé ñoom Malick Ndoye waxi noppi conva bi ñoom Fallou xam nga ñoom booy saar ñoom Bilal ñoom Papa Diop ñoom Momar Ndaw ñoom Waly yi aw ma seen fay ñoom am di nuñ may taxawoo dama am kombaa damay génn sama buntu gaale sa damay jooy. Hmm? billaahi koñ bi kenn du nelaw di gërëm sama waa koñ amel naa leen àq bu baax a baax di nuyu paaye maire yi aw ma seen fay surtout xale yi di nuyu waa Wakaam yëpp waaw su ma ayee ñoom ñëpp dañuy génn ñëw taxaw ma barke Serigne Touba. di hmm. nuyu sama xarit Fallou bi am combat muy booy Wakaam di ko ñaanal yàlla may ko ndam. xam nga ni Wakaam ay champion fa nekk. bu baax ay xale yi fa yu am qualité yu mën bëree. xam nga ni seeni maam yi fa nekkoon yëpp mbër lañu. waaw doo dégg wax Babacar Thiaw mu mag ma. maa ngay dégg. doo dégg ñu naan Babacar Thiaw mu ndaw ma kooku moo ne woon falang loo lebaloon yoo fag wakaam ak ngor Babacar mu ndaw màgg na ba fay la wis la ñu ne amun géwal avance géwal bu gëdd koo ak tamaji mun ko mbay job mbay job mbay ja job ca jandeer gis sama wang ji ñu ne amun fii la jaar ma jalax mbor mbay ci jander ñu gis nga sama wang gi ñu ñu waaw fi la jaar ma jalax mbay gi ñayum jander nga sama wang ji fi la jaar ma jalax sis ci jander sama wang ji fi la jaar ma jalax kon bu ko nee la nga lebalon wakam ngor yof babakar mu ndaw màgg na ba fay la wis la way way lamba ngok way lamba wax la lamba gor gor lu lo man inshallah dafa mel ni dafa ko àndal ñëw fii kooku mooy kan. ki ma àndal ñëw fii Babacar Diagne ñu koy wax Zig. Hmm. waaw dañuy am combat dafay sonn si ñun di ñu yóbbu si autorité yi xam nga te ñaan nañ autorité wookaam yi di génn di ñu jàppale. Baye Fall ñoo jël seen xaalis di ko def si ñun ñoom Samba Bathily Diallo. ñoom Samba Bathily Diallo sama combat bi passé moom jàpp na si gis naa nu ma taxawoo. Hmm. ak ministre Mimi gis naa nañ ma taxaw waa ar arekaar bi aw ma seen fay ñoom Thio ñoom Demba ñoom Maam Thierno ñoom Paate ñoom biraan gars yëpp aw ma seen fay gis naa nañ may taxawoo bu baax a baax. Mhm. Baye Fall bëgg naa leen ñoom laay ba ñoom ñëpp aw ma seen fay ñoom Amadou Beke. gars yi gis naa nañ may taxawoo surtout Boy saar sama doomu yaay ñoom Bilal ñoom Papa Diop ñoom Mamar Ndaw bëgg naa leen bu baax. kon daal nga ni li wóor te wóor mooy Boy Niang ak Balla Gaye war nañ leen ma a boole ñu bëri. kon ci kasa ba lay doon. ci kasa ba lay doon. buñ ko waxtaanee ba juboo rek ñu ñu boole leen ñu bëre. ñu boole leen ñu bëre. nga ne Ama kii day metti Ama Modou Lo làmb juy metti la làmb ju neex a ngi noonu père. mais bébé Saloum franc loo ci wax. bébé Saloum franc euh, avantage bëre si kii la nekk franc. parce que mooy compétir. mooy compétir kon moo ëpp compétition. nga moo compétition moo ko dàq bëre man loolu laa gis. moo dàq bëre nga moo dàq bëre Bébé saalum per lu tax nga wax loolu. Franc fi wane loo xamante ne nii man Bébé Saloum wane wu ko. Bébé Saloum bu wanewul woon du tollu fi bay bëre Franc. <laughs> père Bébé Sa sa kii champion la de Franc. Bébé Saloum it champion la. la kenn werenteew ko. ñaata la fël ñaata la fël ñu dëkk parcelle. bëri na. kon franc moy ñew revanche sil ñooñu. mais franc mo fi tëx ki nga xamantene moy japp gaay di jalax. kan la muy reug reug heure buñ dajé ñom ñaar par avertissement la kay daané wa wa wa ndank ndank koku mbapat la mbeur mën na mën ñëpp mbapat té du mën sax arène. Mhm. gis mbeur mo xamné ne mënul dara ci mbapat. mais foko ko fekk arène ak ko mën doon dafa mbeuru arène ak mbapat dalay duma jànnaxe daan lu leer loolu day am loolu du dara. Mhm. du dara du dara du dara nag. bébé Saloum dafa prouvé. veux ah, prouvé dafa mën bëre. saa yuñ ko C'est mën na leen indil problème. bëre na ñoom ama kenn dire. wax mën mu jógee parce ñun ko muñal amul ñoom ñëpp kuñ ko ci je daan na la de. Mhm. te Franc xam ki muy dajal. dëgg la moo gën a nekk la. bëri bi mu àndal à l'heure actuelle di bëri ci mbapat yi di dem fu ne dafa baax. compétition la. compétition dafa mais bu mu ñëw ak excès de confiance. déedéet. bu ñëwee na nga respecté adversaire mhm. loolu rek laa ko doon wax. bébé Saloum xam na fi muy teg tànkam xam na ki muy dajal kan lu mën a am na ko jox li mu moom muy cër. du ëpp du yees. bu ëppee nga ñàkk bu yéesee nga ñàkk cër day yem doxalal joolaa nga ne lan. <laughs> am na combat bu amaat combat bu neex. ban la. général. général ban bu Malika la wala. bu Malika. ak kan. général bu Malika kii te mu nekk écurie Balla kan la. booy est-ce que defuñu ko ci programme kii ñëwal jox ma maam góor gi mu xalaat. mooy Jola tàggool maa ngi ñu tàggoo. li may tàggoo père di ñaaxaat waa Wakaam ñu jàppale xale yi nekk jeunes yi nekk Wakaam xam di yëngu si làmb ji nu ñuy jàppale football bi noonu laa bëgg ñuy ñëw di jàppale xale yi nga xamante ne ñoo nekk si làmb ji nekk Wakaam di sonnu heure bu ñu génnee drapeau Wakaam ñuy représenté dañuy génn du ñu gis ñuy jàppale père mu sonn ñu ñu sonn trop parce que ku nekk xam ne làmb dafa métti nit amoo lu dul sa quartier ñun Wakaam lañ am Wakaam la ñuy tiitaroo dañuy ñaan yàlla fi ñoom Balla Gaye tollu ñuy dégg nu ay champion parcelle pikin Géejawaay ñu koy déggee noonu waxaam ñun loolu rek ñu tax a sonn père du dara bàyyi suñu yite bàyyi lépp làmba yàqal ñu lu nekk nag père. Hmm? billaay ñuy dégg lu ne di muñ xam nga hmm? dañuy ñaan rek gars yi ñëw jàppale ñu di woo waa US Wakaam ñëpp ñu ngi leen di woo bàyyi ñu kenn Samba Bàccili Diallo ñoom Thiendoo yi gars yi fa nekk ñëpp. ñu kenn daal di woo ñu ñëw jàppale ndaw ñi xam ne ndaw ñi amuñu lu dul wakaam ñun wakaam moo ñu tax a jóg. Mhm. maa ngi gërëm ASC wokaam yëpp maa leen di woo ñu ñëw jàppale ndaw ñi di woo ASC wokaam yi nag ñu ñëw jàppale suñu doomu yaay bi am combat le 29 mars muy fàllu yàlla may ko ndam booy wakaam. ñoom laay laay gis naa nu mu sonné si ñun laay moom patron per dañuy jóge entraînement mu jël xaalisam di ko def si ñun. laay man. laay moom patron. amuñu fayam chaque samedi daf ñuy yóbbu ñuy dem di réere ji taal otoom sol si gasoil dañu yónni fii ba Medina seen mbote dañu jëndal yàpp ñuy lekk ba suur ah, dañu jëndal furu yi di nuy sama yaay jeen jeena ba Camara aw fayam gis naa nu may taxoo ñoom baay ma ñoom jaay ñoom moor ñoom Ibou Zey ñoom paa ñoom farba gars yi ñoom ndooyi ñoom Papa waa garage bi ñëpp aw ma seen fay père di nuy suñu waakoñ ñun amuñu lu dul wakaam di nuyu sama waa koñ surtout waa Touba wakaam aw seen fay gis naa nuñ may taxawoo bu baax ñu leen ko waay di nuyu waa Touba wakaam surtout gis naa nuñ may taxawoo su ma ayee ñoom rek laay gis di nuyu sama géwél bi nag Malick jaañ aw ma fayam damay xewle moo ndi ay sabaram yëpp teg ko suñu buntu kër yëngal ba mu neex ñu dem stade di nuyu sama waa dëkk waa Conke Sil leen nuyu bu baax waaw di leen wax nag awma lu dul ñoom parce que nit amoo lu dul tamit say mbokk di leen ñaan ñu jàppale seen doom a bëgg a nekk champion comme ñëpp fi ñuy déggee na bëri ñu ñu fay déggee looloo ñu tax a jóg. di nuy zig nag sonn na trop si ñun père billaahi di dégg lu ne ngir ñun dañuy am combat mu bàyyi léppam du nelaw du def dara bàyyi ay yiteem yëpp ngir ñun ba làmb ji kon kooku ñun amuñu fayam. di nuyaat waa arekaar bi waa atelier menuisier yi ñoom Tafa ñoom Papis di nuyu Afia Abdallah Mayga maa ngi di nuyu gis eh. naa ni ñu may taxawoo. Oh, Joola. waaw arbitre nee nañ dañuy grève weekend bi de. lu leen def ba ñuy grève. Ah,